image gars yi ñu dem ah ñu dem waaw arrestation bi politiquement la amul luñ koy téye nan wax rek amul luñ koy téye Mouhamed Dieng nekku fi mais ki la plainte Mouhamed Dieng nekku fi nan la bàyyi nga ñibbi da ngaa am njaboot mais tey buñ ko téye pour politiquement moo tax ñu bëggoo téye pour élection yi di ñëw mais du tax ñu am ndam si élection yi te si kàttanu yàlla duñ am ndam te dinañ bàyyi Lat Diop si nii wala si naa loolu for force la deful waxul un milliard la fa fekk LONASE bàyyi fa trois cent milliards LONASE si LONASE si nekk si village yëpp yëpp doon ko doon luyee lat bi mu ñëwee dafa jënd LONASE yëpp jox leen ko mais kooku la lan mooy problème bi yow da ngaa ñëw fekk yow LONASE fu mu am dafa luyee fu mu am dafa luyee ba ngay dem yow fu mu luyee woon yëpp da nga koy jënd ba pare bàyyi fa trois cent milliards kon kooku bu ñu la téye politiquement la bëgg a téye mais Sénégal waruñoo seetaan lii ndax lan million millions la Ibou la Mouhamed Dieng doon fay laat ñu ko dutoo fay vingt millions cent mille cent millions ngay fay mu taxaw ni moom du fay cent millions commencé ko indil problème mu nangu cent millions ndax laat dañ ko boo faylu cent millions damay dagg contrat bi mu nangu ko ndax il faut mu liggéey mu nangoo fay cent millions dem ba si biir taxaw ni day indil laat problème ndax cent millions yi nii naa laat laat du du du du xamul lii laat lu dul dëgg gis nga ñoom lii ñuy woote jub jubal jubante loolu laat da ko da koo dund moom si boppam képp kuy ànd ak Lat Diop xam nga ni boo xawee dëng astur mu bala boo jubul astur mu bala da ngay jub jubal di jubanti kon nan bàyyi Lat Diop mu ñibbi fi ñu toll nii nag dañuy négocier nii rek mais tuuti si kanam bu bu demee ba xam ne ñoom am na lu nu nar ñun lu nu nar dinañ ko def te si kattanu yàlla non duñ ko wax mais sànq nee nga politiquement la ñu ko jàpp mais ki koy ki ko ki ko porté plainte ba mu yegg si fii kooku liéewul dara ak politique commencement bi doon plainte bi ah. man convaincu ma man 17 heures laa fi ñëw ba vingt ba 22 heures et demi ñu may doog a bàyyi façon laaj bu ne laaj nan ma ko non lépp ay ndax laa dala doon fay xaalis ngay liggéey ay nit est-ce que laat dala doon fay xaalis ngay def lii wala laa wala lële dala doon dénk xaalis lu may dénk xaalis laa doonoo sekk dénk xaalis jàmm bu mën sëkk kese mooy sunu diggante ak di ko jàppale si lu nu mën sunu kamtalaay kàttan lool kese ñu liyee loolu la ñu boole mais du leneen. mais tuuma yi teg nag naan euh, Lonase da nga gis nit ku am ñaari salaire. amul. ñi nekk LONASE yi nii loolu amul ñi nekk LONASE ñoo ngi nii loolu amul LONASE amul ku fa am ñaari salaire amul ba ba mu fay jógee bokk xaw ma léegi mais nam mu fa nekkee ba na mu fay jóge ku fa am ñaari salaire amul ñoom danoo waxoon lu leer bu buñ ko xoolee samedi bi dimanche ba lundi amuñu luñ ko jàppee dañ koy bàyyi kon léegi nan bàyyi doomu jàmbur mu dem si njabootam moo gën seen yii ñuy def nii ñoom danoo xeex pour lii ku nu jàpp ñu génn di taal ñun mënoon nanoo taal mais li ñuy taal ñun ñoo ko defar ñoom Lat Diop mii bee berte beeg terre bi bu fi ñëwee grâce Lat Diop la moom moo dox marché bitim réew indi ko jox ko Macky Sall mu téye ba teer beeg berte bi mën fee ñëw kon ñun duñ taal suñu alal. mais ni nga xam dafa mel ni da ngay adressé sa parole que ni nguur gi ñoo ko jàpp. mais Lat Diop justice moo ko jàpp yoon moo ko jàpp. mais nguur gi mooy yoon mooy ñoom ñoom la mais yow tey plainte naa la. ñëwoo dañ lay bàyyi nga ñibbi ba ki la ñëw ñu woo leen ngeen ngeen toog wax tey bu doon Mouhamed Dieng dafa ñëw toog amul problème ndax laat xam nañ ko bu baax laat wàllu kayit kenn du ko si daaneel mën nga koo sosal mën nga koo tuumaalal mën nga koo waxal lu ne wàllu kayit kenn du ko si daaneel laat buy jëflanteeg yow sax danaan la signal ma signé bindal ma bind kon kooku amul lu muy jox nit si ay dóor dàkke amul man laaj nan moo ko ndax amul ay société yenn société laat daa am yenn société amu ko te man laaj nan moo ko mais amu ko. Ah, parce que dañu wax naan ci biir entreprise la dafa am ay amaatu fa dara man dan ni ma moo Mouhamed Dieng est-ce que dañ doon teg ay dil te teg dilu boobu amul Lat du teg ak dil Mouhamed Dieng waa ji loolu laa ko wax dama ne ko sawaay Lat Diop mi ma xam du teg dil ak Mouhamed Dieng Lat ëpp na loolu barke alxuraanu karim Lat ëpp na loolu teg dil Lat ëpp na ko kon nan ko bàyyi mu dem élection yaa ngi ñëw ku mën a gañe gañe wala ñoom dañoo wóolatul seen bopp ndax xam nañ ni réew mi bàyyi nañ leen ñoom ñi fi nekk nii xam nañ ni réew mi bàyyi nañ leen ñoom xam nañ ko se segam nag xam nañ loolu moo tax ñuy bëgg a damm gars yi seen tànk gars yi ni woo bari nañ de pour lan pour damu seen tànk ndax élection yi ñoom c'est fini c'est la première fois ngay gis président bu def benn mandat ci Sénégal bii nga koy gisee doo ko gisaat mais si bii nga koy gisee te bii lay doon nan bàyyi la job mu ñibbi moo gën. mais nag ki nga xam ne mooy maître El Hadj jokkonte nga ak moom. non maître El Hadj man gisuma ko sax tey tey gisuma ko mais l'essentiel démb ak euh, samedi bi yëpp li mu wax mooy dossier bi amul benn changement bu fa am mais lu amul changement du la bàyyi nga dem samedi si guddi bi mu demee bu mu yéegee ba wàcc dañuy dossier bi amul benn changement loolu ay am nga ay kër fee am nga ay banque ay lu ñàkk fayda la daa am kër la këram gii la am si kër à part këram gi amul kër mais nan ko ba mu dem. amul lu ñu koy téye nan ko ba mu dem mu ñibbi këram ba Mouhamed Dieng ñëw bu Mouhamed Dieng ñëwee mais Mouhamed Dieng daa am ñu nekk si ginnaawam. bari na du ma tudd tur ndax eggaguñ fa mais ñoom ñu ne si ginnaaw Mouhamed Dieng nan taxaw ñu ñun nan jàkkaarloog moom for force si ñoom te lu nu mën nan ko waaj te xam ni nan dal si seen kaw loolu nan ko waaj ñoom voilà. waaw maa ngi ah. lay fay waaw bon responsable laa ci ay jeune Lat Diop bokk tam aussi si njabootu jeune Lat Diop bi. bon ñun dañ cee sant yàlla ah. li tax ñu sant yàlla ànd ceeg euh, mbégte euh, boo dee boo dawalee tuuti ci ginnaaw. Hmm. en deux mille vingt deux Ousmane Sonko dafa ñëwoon Géejawaay. Hmm. ci ay élection local mu ni woon kii di Lat ak kii di Aliou Sall dëkk fii ñu ma xam la ay sàcc lañ. deux mille vingt deux ay deux mille vingt deux mu ni ñu ay sàcc lañ. mi ngi ko defee biir golf ay responsable Géejawaay taxaw fa ku ci mel ni Ahmed Aïdara taxaw fa le Malick Gakou tam aussi taxaw fa ñu ànd ak coalition yeewu askan bi daan ni Lat Diop bi sàcc la hmm. teg ci mu ni ñoom ñaar ñoo bokk nekk enam hmm. kon xam na ko bu baax a baax ba mu waxee loolu ñu bëri ñu ngi commencé di wax suñu leader wax bu ñaaw hmm. ñu toog dal noppi tey jii nag yaakaar naa ne bi mu demee ba am ba accès au pouvoir dafa waroon a tey indi preuve la doon wax mais indiwul preuve la mu doon wax Lat Diop tey li mais dama laaj est-ce que dafa am benn rapport d'état bu ko épinglé bu ñu nekkee ci ay enquête aussi enquête yi ñëwagul fii dafa am rapport bu ko épinglé Cour des daf ko épinglé IGE te bu ñu fàttaliku ne Lat Diop bi mu wàccee LONASE ki ko wuutu bi mu ñëwee indiwul benn maison d'audit ne day audité Lat Diop audité na ko lan la gis dara kilin saa Lat Diop gestion am ñun dañ cee am maanaam dañ ciy tëdd nelaw cas bi mu amee la moo tax gisoo fi nit ñi nit ñi dañoo tëdd nelaw xam ni Lat Diop ñun dañ ko wóolu xam mooy kan tey jii man mais bokk naa ci ñu ko gën a jege est-ce que tey mus naa xëy biir Lonase est-ce que tey man am naa contrat CDI Lonase te ak maa yelloo am ko ci moom mais tey foofu noonu kuy xëy di liggéey yaa fay dem mais est-ce que da ngay jox benn Matar boo xamante ne jage na ma Matar sama jeune la Matar mi ngi may doxal lépp Matar yaa ma neex may defal un contrat boo xam da ngay fay ak te doo liggéey non nañ dem biir Lonase Matar mus fa am contrat Matar mus fa am marché lat du doxee noonu la preuve am na ay nit yu ñun yoo xamante ne dañuy wax sax ci réseau yi ñëpp xam leen tey dañ doon liggéey biir Lonase bu ñu toogee quatre jour liggéey si wuñ seen weer bu dee bu ñu leen dee fay Lat Diop mooy signé li nga xamante ni mooy dagg bi ñuy dagg sax Lat joob moo koy signé jox la ko ba pare yónnee la tam aussi benn lettre d'investissement ne la weer bi boo toogaatee quatre jours yi nga toog liggéey ko ma dàq la kon ko amu ci mbokk mais ku nga xamante ne tey yow mi fa am contrat di fa liggéey ngay nitam toog liggéeyoo ñuy muy élaborer salaire gis ni carrément yow am nga quatre jours yoo manqué mu dagg la jox boo ko defaatee ma dàq ko kooku kon dina jël nit naan dafay dugal ko génnee bu dee am ko génnee bu dee am na ñun lat moo tax man dañoo sant yàlla bu baax Sonko dafa am lu mu waxoon deux mille vingt deux tey mu ni woon bu faloo dafay tëj Lat Diop en deux mille vingt quatre moo ko wax du lu ñuy fondé du lu ñuy wax du lu ñuy loo xam ne ko koy dañ ko koy sosal vidéo yi boo ko génnee da koy gis Sonko moo ne Lat Diop sàcc nga deux mille vingt quatre bu ñu jëlee réew mi dama lay ci kaso bi tey jii an léegi nit ki tuumaal nga ko sàcc ne ko woon ta état te yaa ngi ci état génnal preuve bi ko sàcc nga ñu indi ko fii nan ko benn waaye moo ko corrompre xaw ma lan dem na yoonam mais tey dama ne la su fekkee dañoo nekk ci état bu normal Mouhamed Dieng bu ñëwee fii police nee la man kat man corrupteur laa. yaa ngi dégg wax ko commissaire commissaire bi dina ko ah mun ko man corrupteur la ma corrompre diw yow corrupteur bi na ah da nga corrupteur nga dama la toogal xaar ma. Hmm. dem jël ji ki nga man loolu laa xam su fekkee li ñuy wax noonu looloo nekk. mais ah waaw mais comment ça fait nga yow ne yow corrupteur nga yow ñu la nga dem yow yaay comprendre kon donc ñun dama lay wax ñun ay jeunes Lat joob ñun dañoo conscient ci dossier bi ñun dossier bi maanaam dañ ciy ñëw toog waxtaan naan suñu lekk suñu lekk naan suñu naan amuñ ci lenn luñ ciy tiit mais nag bu buñ ko bëggee jël yóbbu ko ci côté politique ñoom pour ay règlement de compte ma wax la tey Lat Diop ak Sonko. ñoo bokkoon nekk ay promotionnaire biir ENAM Lat Diop musul nangu benn jeune attaqué sonkoo musu ko nangu ku mus a gis ci sa page Facebook nga am loo bind ci Sonko mun leen dindal kii sama promotionnaire la kañ la commencé di attaqué Sonko bi mu ñëwee géejawaay dindi war ma boobu noonu mu amoon seen diggante dafa moom mi ngi xool fi ñu jëndoo ñoom ñaar fa la ànd ak moom tam aussi jamaay fa la génnee bi mu demee nag ba Sonko na dindi loolu ci la moom tam aussi tourné ne ko nag kon dañ jàkkaarloo ci la lab na commencé ak moom mais génneel benn vidéo bu nekk deux mille vingt et un ba ba décembre deux mille vingt et un fa la Lat musa wax ci Sonko gis c'est parce dafa dafa wormaal fi ñu génnee ndax foofu dafa jàpp ne ay intellectuel d'état ñoo fa war a effectivement ñoo fa a ñoom ñoo fa génn mu téye orma boobu ba jusqu'à ce que Diop saaga ko kii euh, Sonko saaga ko wax ko bu ñaaw boobu mu doog a commencé nag di riposter ci kawam tey ji ay nitam ñu ngi jël ay vidéo naan Lat Diop da moo mës a taxaw fii saaga Sonko nanga na c'est parce que Sonko moo démarré guerre boobu noonu Lat dafa mës a fonk ni Sonko mii euh, ñoo bokk fi ñu génn sama promotionnaire du ma wax ci moom lu ñaaw du ma wax ci moom dara Sonko yàgg nañ di wax ci ba élection 2019 nit ñaa ngi doon wax ci moom est-ce que gisoon nga ci ci la Sonko wax ci Lat Diop Lat Diop na doog a commencé génn ci kawam Sénégal na xamuñ ku tooñ ku fayoo lañ xam te Lat Diop boo ko xuree boo ko wokkee mu xuri la nga gajj ko mu matt la loolu